comme niñ ko waxee mooy sunu temu tey bi dañ ko tàmm ci naafeq muy hypocrisie hypocrisie ak melo yi nga xam ne moom la naafeq di amee ak li nga xam ne mooy yóbbu nit ki ci naafeq ak naka la ñuy traité naafeq euh, comme ni ngeen ko xamee naafeq dafa nekk benn attitude boo xamante ne nii nit ki daf koy am muy dissimuler véritable caractère am ma yaani huwa muxaalafata sirri wala alan sawa kaana fi l imaani aw fi taati aw fi l muaasharati ma annaasi wa sawaan qasdu qasdun bihi talabul jaah والمال am na waa aammu min ar-ri'a donc hypocrisie mooy loo xam ne dafa waroog li nga xamante ne ni mooy mooy li nëbbu maanaam nga dissimuler ko di wone loo xamante ne ni dafa waroog li ci biir te ci li ci biir du dëgg soit ngëm yàlla la wala nga gëm benn cause wala idéologie wala foi wala topp kenn ci wàllu sur le plan politique sur le plan religieux sur le plan culturel idéologique ak yeneen sentimental émotionnel yooyu yëpp nga xam ne danga koy def pour dissimuler wu ci nit ñi ndaxte am na loo jublu ci loolu te loolu ci jublu peut-être mën na nekk da am ay courir derrière des décrets wala des nominations des privilèges des avantages soit alal wala yu demee noonu kooku moo waree xool moom sax moo gën a général ci ostentation le voyeurisme donc loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo moo tax jële nañ ci xadis mu wax ne an nifaaqu yufsidul iman maanaam hypocrisie dafay yàq ngëm maanaam l'hypocrisie détruit euh, euh, la foi waaw mu foi en Dieu ou bien foi en quelque chose nit ki bu sincère rek bu amul loyauté franchise droiture rek kooku mënu ko respecté mu amaat beneen xadis mu ne an nifaaqu axu shirk naafiq mooy mbokku bokkaale yàlla parce que ñi bokkaale yàlla yëpp dañoo naafiq parce que dañuy xam ne yàlla mooy leen jox oxygène bi yàlla moo leen jox wërsëg bi yàlla moo leen amal amal ki leen maanaam seeni ñaari way jur ñoom ak seeni ñaari way jur ak nit ñu fekk ñëpp ci kaw suuf fii lañu fekk asamaan fekk suuf te nag dañuy dem bàyyi ko fi parce que amoon nañu ay maami maam am nañoo sax xamatuñ leen ci ci ci ci ci ñoom dem nañu te moom it day dem waaye nga xam kooku ki def loolu nga bàyyi loolu yépp pouvoir boobu mu am nga jël jox ko keneen koo xam ne léeg sax mi ngi ci biir suuf dee na ba pare mënul dara walla day nelaw ak yeneen ak yeneen yoo xam ne day def yëfu nit di am doom walla ñu di ko takk muy jigéen waaw muy nelaw waaw donc yooyu yëpp nga bàyyi ko nga jox ko kooku nit wala kooku jëmm te mu wóor la ne du moom yàlla moom moo ko créé créé la créé li nekk ci sa environnement kooku naafeq la moo tax an nifaaq wa axu shirk l'hypocrisie et le jumeau de ce qu'on appelle le polythéisme mu waxaat ci beneen xadis an nifaaqu chiinul axlaaq mu ne naafiq mooy maanaam catu catu catu maanaam jikko yu baax maanaam le fléau de la morale de la morale c'est-à-dire l'hypocrisie et le fléau de la morale de la bonne conduite donc mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo la pour que ñu ci bàyyi xel moo tax euh, naafiq amul lu ko gën a bon ci parce que dafa dajale lépp moom condensé la maanaam voyeurisme gis leen ma maanaam ostentation wanewu dégg leen ma nii laa mel nii laa maal di fen ak a pexe yëpp ak soxla ci nit ñi dara seeni loxo loolu yëpp li ko indi mooy naafiq moo tax naafiq dafay toroxal nit ki gis nga naafiq du dañ toujours di toroxal boppam première torox bi nga xam ne nit ki daf koy sentir ci boppam mooy mu sentir nifaaqam naafiqam waaw mu sentir maanaam naafiqam naafiq boo xamante ne ni sëriñ bi dalay wóor ne eh, lii lu kéemaane la parce que jullit bi bu fekkee dafa ànd ak jet yi ak jet-setteuses yi nga xam foo rek lañuy bëgg ci ci ci milieu politique milieu euh, euh, des affairistes milieu maraboutique di caaxaan seen woy woy yi ngay woykat yi nga gis ci kër ci ci politiciens yi ñoom ngay gis ci kër ñi am alal ñoom ngay gis ci këru yenn sëriñ si na la wóor ne danger am na pour la société parce que dañuy dem ba dañuy day tax les francs-maçons les les cercles euh, euh, comment dirais-je hostiles à l'islam au valeurs religieuses dañuy mujj di kekkantoo diine Euh, di ko di ko di ko di ko kekkontoo man mas naa ko wax ci télévision euh, ma ne leen nañuy éviter ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ci turu diine di jël koo xam ne ñëpp dañ koo xam ci reporteru làmb la reporteru euh, di dem Daniel Sorano nekk micro central di fréquenter ñi fréquenter lieu yu bon yi night club yi baar yi fi ñuy defee seen yëfu yooyu ñooñu dañuy am ñoom it seen i fans ci ci ci groupe yooyu bu ñu demee ba nga xamante ne ñooñu ñooy mujj yoon microcentral di jot lil sëriñ ñooñu bu ñuy ñëw dañuy indaale seen état major bu ko defee ñëpp taalibe yi nga xamante ne ni ñoom la seen maam yi formé ci diine ñu waroon a xam sëriñ bi lu muy wax ñu mën ko ko jottalil ñooñu bu ñu leen gisul foofu ñu jox ko ñooñu ñooñu bu ñu ñëwee dañuy jàpp kon mbir yaay caaxaan rek la lu tax joxuñu ko sëñ diw moo tax da ngay gis benn sëriñ wax ki ko war a jottalil aaya alquran bi du ko mën a àggale du ko xam sax danaan ah gaa yi ree gis nga mooy li ma doon wax léegi mooy dañu lay kekkantoo dañu kekkantoo diine yaakaar ne diine caaxaan bi yàlla foowul de kenn ku nekk ci ñun am na tombam te booy dem yoo rek yaay dem waaw booy dugg aussi yoo rek yaay dugg waaw yoo rek yow yaay dugg te yow la ñuy laaj moo tax tooñ baaxul foo baaxul waaw bu ko defee lépp loo xam ne diine da ko indi duñ ko respecte waaw dañ koy jël daf ko ay fecc fecc lañ koy def loo xamante ne spiritualité la spiritualité maanaam day sellal sa bakkan ak yëpp sellal sa bakkan bokkul ak fecc àndul ak fecc àndul ak ay délices la licence di fen di naan di lekk d'accord loolu yëfu nit la mais warul excessif dafa war a nekk lu modéré pour rek juste loo dundee pour mën a continuer di jaamu sa boroom parce que nit ki jullit bi lépp lu mu def rek dafa war a nekk pour jaamu borom bi moo tax loolu dafa am solo euh, euh, ñu bàyyi ci xel parce que diine lu nit am rek ci valeur lu yàlla wàcce diine moo ko ëpp doole te aussi beneen très caractéristique mais boo xam ne bu subsidiaire la bu secondaire ci naafiq da nga koy da ngeen koy xool mooy ne almunaafiqu li nafsihi mudaahinun wa ala nnaasi taainun naafiq foo ko fekk dafay nekk ku un mooy maanaam day narcissique li tubaab naan narcissique dafay wanewu day bëgg boppam dafay wane boppam day jaay jomba ñaaw loolu ñu tuddee cajolerie waaw cajolerie courbette lèche tu vois adulation courtisanerie encensement flagornerie tu dafay bëgg loolu mooy al mu al mudahana waaw dissimulation waaw maanaam dafay wonewu ne moom nii la mel waaye ala naasi taainun nit ñi moom duñu mucc mukk ci làmmiñam koo wax rek mu ne la accam kii du dara xamul dara bokkul ak man man ni ma mel ak fi ma juddoo fi ma yaroo li ma yor fekk yëpp ay mensonge la de de de sur toute la ligne waaw mu ne naafiq foo ko fekk rek day nekk ku day nekk ku nombriliste waaw koo xam ne moom day yaakaar ne ku fi taxaw ci kaw suuf rek moo la ra waaye kenn ku dul moom doo dara da nga koy gis aussi ci borom xam-xam ah, muy du ci diine wala beneen bu ñu toogee ngay seetaan télé wala di déglu rajo ñu ne kenn ah am na xam-xam wala ci suñu groupe yi ñu ne la ah non kooku amul xam-xam parce que bëggul ku wax keneen ku dul moom da nga koy gis sunu doom yi boo boo amee doom bu ndaw rek un an mu am nga beneen deux rek da ngay gis dafay commencé di am am am kii bi caractère bi parce que c'est humain mooy maanaam day siis keneen ku moom day siis liir bi tu donc yooyu dafa dafa am moo tax ñetti caractère yi ñu wax yooyu ci naafiq nga xam ne dafay wor làmmiñam maanaam xol bi day wor làmmiñam xol bi day wor jëfam waaye aussi jëmmam day wor li nga xam ne mooy li ci suuf waaw donc loolu dafa nekk caractère bu dangereux. li nga xam ne nag mooy yóbbu nit ñi toujours ci naafiq ñu yóbbu nit ñi toujours ci naa naafeq tabor bi mooy al kës bu fen waaw fen fen boobu nag mooy lay yóbbu ci ngay def ay courbette waaw ay cajolerie di ndax nit ki di ko di ko raay pour mun nelaw rendi ko ak coton jël li nekk ci moom ci adulation encensement mooy maanaam yaa fi gën yaa fi nii yaa fi nii comme li fi xew rek nga xam ne moom ngay gis ci ci ci ci surtout ci woykat yi nga xamante ne ni dañuy ñëw ci nitu diine wala businessman wala politique dinañ ko tagg tagg boo xam ne xamuñu ko woon ci ci ay maamam xamuñu ko woon ci ay ndeyam wala ay baayam même moom sax day jaaxle waaw même moom sax day jaaxle ci tagg boobu waaye dañuy bàyyi mu dem léegi nag la la la conscience populaire ñi nga xam ne jànguñu wala dañuy dégg rek topp ñooñu ci la ñuy jël ne ah jiw la ko yàlla mayoon tel tel tel tel fekk c'est faux dañ ko ko tappal parce que société noonu lay demee moom la ñu tuddee ce qui est diachronique yi nga xam ne ay mots la ay néologisme yi ñu créé histoire bi créé ko moment boobu ce qui est diachronique mooy yóbbu nit ñi généralement day dem ba dafay ancré ñu ne ah kon nii de nii la demee mais am na yoo xam ne tey mi ngi xew ci société sénégalaise ñun ñi nga xamante ne nii juddu nañu bu ko boo ko dee xool ba ci groupe bi jëpp cent quarante ba suñu jëm yàlla tey ji am na yoo xamante ne ni ci tranche boobu ñuy dund xamuñu ko woon te tey xam nañ ko ci diggante deux mille deux mille l'an deux mille ak ak ak l'an deux mille vingt trois bii ñu nekk te mu wóor léeg-léeg da ngay mais da nga naan mais lii mas naa am xanaa man fekkuma fi woon wala je ne sais pas ndax teewlu ma woon wala lan la parce que société yi noonu lay demee mooy les trans les mutations euh, sociétales waaw dafay am transformation <coughs> te day rapide te li koy indi mooy fen ba pare nag nit ñi noppi duñu rétablir la vérité waaw duñu rétablir la vérité donc li ci jiitu mooy fen fen moom mooy li yóbbu nit ki ci naafeq perfidie waaw moo tax ñu wax ci xadis ne ku mel ni amirul muminin di rakk yonente yàlla mu wax ne al kasbu yuaddi ila nifaq fen mooy chemin bi nga xamante ne mooy wenn moo lay mëne droit en ligne vers ce qu'on l'hypocrisie maanaam naafiq waaw ñaareel bi alxiyaanatu mooy maanaam tra traîtrise perfidie waaw la trahison waaw perfidie nga xamante ne ni da ngay wax ak nit ki ngeen wax ba ba ba kii mu mu mu jàll day am ci politiciens yi trahison day am ci homme d'affaires yi trahison bu demee ba gis ngeen wax ba ngeen sotal conclure le marché mu gis le prix offrant bu dee kii jaay la wala gis foo xam ne kee intérêt c'est le moyen offrant te moom moyen moyen kii mën na ci jënd day da bàyyi sans pour autant te dire au revoir nga dem ba ci diine daf ciy am xoolal sëriñ si toujours nga dégg ay scandale ay ci multiplication de biens wala kii diw man na ñaanlu fekk yëpp c'est des mensonges yi ñuy créer créer ay nit ñu nekk ci réseaux sociaux yi di wax nit kii kii daf ma ñaanal sama bopp bi di metti mu wër daf ma ñaanal sama biir di metti mu wër kii ki mu may xalimaam du taqu suuf daa am du def nii fekk tout c'est des mensonges waaw c'est des mensonges parce que boo ngeen xoosee bu ngeen xoolee la société sénégalaise ni mu bindoo sax léegi nga xam ne fen moom moo ko commencé sclérosé di ko di ko ŋaañ di ko jël di ko jël di ko jël ba boo dee xool dara desatu fa muy man mii wax ak nitu diine beeg nit ñi yaakaaroon ci wàllu aada cosaan joxal leen cër ñëpp dindi nañu cër yi waaw ku wax ñu saaga la ba boroom xam-xam yi kenn ñemeetul génn ci tele wala bind pour ne voilà damay def contribution pour éveiller les consciences ko trahir dinañ la wax wax yoo xamante ne ni sosal loo xamante ne ni lu day mel ni xeme te dara du ci dëgg te amuñu luñ ciy regretter ñoom parce que bëgg lañ ci soxla moo tax trahison perfidie mu bon moo tax alxiyaanatu raasu nifaaq la traîtrise la perfidi c'est la tête de l'hypocrisie maanaam boo bëggee gis bopp bu doon tey naafeq jëmm la bopp bi moom mooy trahison ñetteel bi al insaanu al jaahilu tamma maanaam perfidi ñetteel bi ci trahison moom la la naafiq di jële di yóbbu ñetteel bi mooy naafiq fi mu lay yóbbu mooy ci réer ignorance ba pare nga nekk koo xam ne ku avide ku vorace waaw koo xamante ne ni du du doyal mukk waxoon nañ ko fi day ànd ak boli mi waaye aussi day nekk koo xamante ne ni Euh, euh, euh, dafay dof maanaam day ignorant parce que du xam leneen lu dul intérêt waaw fan la nekk waaw loolu c'est très grave ñetteel bi ñeenteel bi mooy suul axlaaq wa qillatul xayaat day ñaaw jikko ba pare ñàkk kersa loolu na ngeen ko xool rek actuellement tey ci réseaux sociaux yi waaw ay ñu tuddee seen bopp sëriñ ñaaw jikko ba pare nekk ñoo xamante ne ni dañuy ñàkk kersa di wone ak a wax ak a yoo xamante ne ay secret la yoo xamante ne ni bu ñu doon ay nitu diine wala moral duñu ko duñu ko def waaw juróomeel bi mooy at taalluqu euh, euh, euh, bi dunia wa nisyaanul axira naafeq foo ko gis dafay bëgg àdduna waaye aussi dafay nekk koo xamante ne ni day fàtte àlaxira toujours ci rythme lay nekk perpétuel day bëgg fu fu rythme musique euh, euh, euh, ci ci nu mu tuddati ci sport du bëgg wéet même ba ci ay ay jàng sax yi ñuy tudd ci turu yàlla waaw parce que c'est des rythmes parce que même yooyu sax yi mën nañ substituer jàng yi ci def seen caaxaan yi dans les night club et consorts yooyu gis nañ ko fi fii Sénégal la tu vois mbiru mbiru nit la donc yooyu yëpp da gis day bëgg day bëgg rythme quoi doo bëggul dal te ñëpp xam nañ ne dal ci la nit ki di trouver yoonu yoonu njub tu donc loolu dafa nekk lu am solo euh, euh, euh, jur muy juróom-benneel bi mooy dafay bëgg kasratul yi foo ko fekk mi ngi def bàkkaar mënul bàyyi nit ñi ci jàmm ak seen honneur rek seen dignité foo ko fekk rek mi ngi mi ngi mi ngi leen di mu ngi mi ngi wax foo ko fekk rek mi ngi léché wala mi ngi ci ay courbette wala di adulé wala muy ci encensement wala yoo xamante kenn xamul euh, euh, euh, ni mu dem ci donc loolu dafa nekk loo xam ne lu ñu war a mooy moo tax même naafeq googu comme ni ma ko wax ci di flatter nit ki pour jot ko ah pour pour jot ay mbiram ñuy yëpp da nga gis liñ tudde al mudahana muy flatterie wala adilation wala dissimulation comme ni mu ko waxee les courbettes les flèches et consorts dafa nekk loo xam ne l'islam daf ko tere te naa fiq jikkoom la de par sa de prédilection maanaam boo ko dee xool jeex jikko boobu moom da koy fekk ci moom toujours da ngay gis bu nit ñi di def bàkkaar du ciy wax dara day am ak ñoom sax jàmm parce que am na ay intérêt yu nekk ci loxo ñooñu surtout ci jet yi les jet setteurs ak jet yi ñoo ci bokk yam ñu bëgg maanaam euh, euh, euh, wax nekk ci dëgg wala wax nit ci dëgg parce que dañuy soxla good time di def lu leen neex nekk ci seen gunaandaat bu ko defee duñu mun a wax nit ñi dëgg parce que souvent ñi leen di seen pourvoyeur de fonds ay saay-saay la ñuy doon comme ñoom te xaj yi ñu yi ñoom ñooy ànd tu vois donc loolu la moo tax dafa am important que ñu xam loolu flatteur yi eh, eh, eh, ci lañ bokk mooy fexe duñu du ñu conseiller nit ñu baax ñi saa yu ñu leen jegee rek am na lu ñu soxla ci ñoom yooyu da koy gis ci ci ci nit ñu am nitu diine yi nitu politique yi ak businessman yi maanaam nit ñi am les richissimes toujours dañuy am benn groupe de de de de flatteur ñoo xam ne yaa fi man yaa fi def nii yaa fi def naa ba mujj bi dafay indi dafay indi problème di leen indi ay ay cajolerie cajolerie leen cajole maanaam di leen raay sur le sens de du poil pour que li nekk ci seen loxo ñu génne ko te loolu yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi daf ko tere parce que nee laatu laatu eh, daahinu fil xaq bu leen di flatter ci dëgg maanaam dëgg taxaw ngeen di flatter nit ki naan ko non yaa nekk ci dëgg yow ñi day seen morom baadoole bi ki dafay dara tel tel tel lu mel noonu yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ko tere moral daf ko tere moo tax yooyu aussi ci ñett yi lay indi lu tax ndaxte nit nit ki ida arafa al insaanu al xaq fala yudaxinu fi l nit ki bu xamee dem ba xam dëgg bu mu ci maanaam bu mu ko dissimuler bu ko bu ko bu ko cajolerie puus courbette bu mu ko puus lèche bu mu ko puus pour muy wax lu dul dëgg courtisanerie parce que laa àndal dégg nga pour que rek ñoom ñu bég ne ah waaye diw bi laa yaa baax combien ci ay dëgg tey ci Sénégal la ñuy gis kenn ñemewul wax boo waxee ñu saaga la te boo waxee sax dañu lay ñàkk loo fayda ne waaye yow diw ngay dénoncé yow xanaa gisoo yow xanaa xamoo kii kii diw mooy bàyyam wala mooy maamam wala mais gisatuñu dëgg gi nga xamante ne ni mooy bi ñu war a défendre waaw ci sant rek ak yooy la ñu bëgg a basé wala ci ci corporation wala ci confrérie wala ci classe politique ak yu demee noonu comme courtisanerie comme je viens de le dire bu ko defee mu indi ay problème ñaareel bi euh, laa tudaahinu fi lxaq ida warada alaykum wa fa tuxsiru xusraanan mubinan gis nga bu leen di flatter wala di complimenter ay nit wala di leen cajoler di leen nax di leen raay di leen sànni ay fleur fekk xam ngeen ne li ngeen di def du dëgg parce que loolu forme de naafeq la moo tax jullit bi yaalama al muslima euh, euh, euh, al muslimu annahu bi mudaaxanati ahli lbaatili fa innahu yuarridu diinahu lil xatar jullit bi dafa xam ne bu nekk ñi nga xam ne ces jet-setteurs ces jet-setteurs ces classe politique dévergondée yaa ngi dégg corrompu ñi nga xamante ne wala sax religieuse classe sacerdotale eh, eh, dévergondée déviée hérétique mu ne na wax ci ñoom maanaam bu mu xam ne ñu ngi nekk ci ci ci caaxaan mu ànd ak ñoom waaw mu ne loolu da yàq diine jullit bi daf koy mettre en danger parce que day gis nit ki yaakaar ne ci turu diine lay wax mu fekk ne waxul ci turu diine diine bi daal mooy tur bi rek lu mu lu mu religion rek nga yaakaar ne donc fuur tuura luñ ci def rek diine la fekk dafay waroo ak diine mais heureusement alquran a ngi fi li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa jàngale bu dee fi ci Sénégal am na ay relais ay sëriñ yoo xamante ne jël nañ ko def ko bind ko def ko ci ay téere pour nit ñi léegi traduire nañ ko en français en arabe en anglais et dans beaucoup de pas pour nit ñi dañ ci réer boobu moo tax loolu dafa nekk lu ama am solo pour ñu xam ko moo tax bu ñu toogee naa fiq am ñuy jayante jay muy flatteur yi ñuy jayante yaa fi gën yaa fi mam bi ngay def nii kenn kii nii muy ci politiciens yi muy ci affairiste yi ñi am borom alal yi ak ci nitu diine yenn yi mu ne premièrement yàlla dina wàcce ñetti mbir bi ci jiitu ci flatterie boobu ak jayante boobu nga xam ne duñu waxante dëgg ay fen rek lañ koy lañ lañu koy lañuy la ñuy def bi ci jiitu mooy nuzulul i xatta alal axyaar mooy wàccee li ñu tuddee balaa ay fléau ci ñi nga xam ne mooy ci société ba surtout nag ñi nga xam ne ñoom la ñu ne ñooy ñu baax ñooy sëriñ si comme ni ñu ñu fii rek ñoom sëñ sëñ jiw bu doon ci groupe bi dañu naan man oustaz Saliou Sarr sama nijaay kii Fall et consort ñuy wax ci diine ak euh, sunu grand professeur Mody ñooñ la ñuy wax ne ñoom ñooy donc groupe boobu bu ñuy wàcce balaa ci ñoom lañ koy njëkk a wàcce wantuma laa nag fi parce que ñoo war a tere te terewuñu moo tax yàlla wax ci xadisul qudsi ida asaani man arafani sarlattu alayhi man laa yaarifu ni ki nga xam ne daf ma xam nekk sëriñ nekk oustaz war a porter le message religion bu fekkente ne ni daf ma moy te mu wër ma ne daf ma moy moom yàlla te mu xam ko mu ne dinaa ko boole koo xam ne dina koy duma suba ak ngoon te te du ci mën dara waaw te nag bu bu ñaanee damay rejeter ñaan bi xoolal rek tey Sénégal ñaan dañu am problème tu donc première dóor bi nga xamante ne mooy naafiq bu demee ba tas ci ci ak jayante ci société mooy dafay wàcce balaa moo tax imam Baqir di set ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam euh, maamam baayam yi muy imaam Sajjaad Zeynul Abidin baay imaam Xuseen imaam Xasan ba Ali ba ci nettali na ko ne yàlla dafa wax yu yonent yàlla Shuayb bi euh, defe na xam ngeen ko moo doon goro yonent yàlla Muusa mu ne ko inni muazzibun min qawmika mi'ata alf euh, mu ne man yow Shuayb dinaa dinaa dinaa mbugal ci sa xeet cent mille personnes ñaar fukki junni nit arbaina alfan min shirarihim dinaa jël quarante mille parmi eux mooy ci ñu bon waaye wa sittina alf min xiyaarihim dinaa jël soixante mille yi moom ci borom xam-xam yi laa koy def gis ngeen quarante pour cent yi ñu bon waaye ci ñu tudde ñu baax soixante pour cent yi ñoom lay nekk moo tax gisoo même sëriñ moo lay lu wax ni rek mu ne dina di nga dem safara wala dinaa la yóbbu safara mu mel ni safara ñoo ko moom comme nag yaa ko moom yaa fay njëkk a dugg parce que booy dëgg sa yaa yaay njëkk a ne entré parce que seen jikko moo tax yéen ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam wax ne afatul ulama alxasad maanaam bon bonu sëriñ nitu diine nee na bon bonam moom mooy iñaan na ko xool rek moo tax wala fii ne mbaamu buntu këru sëriñ la ko def te yow man mu ñi ñu tuddee borom xam bu bu gën sëriñ dafa large mooy mooy boroom xamu diine borom xam-xamu mathématique science wala leneen parce que dafa war a développer moralu nit ki l'humanité et l'humanisme même de de de son humanité niteem daf koy développer xam-xam daf koy génne daf koy éduquer kooku nag bu demee bay ba musiba mu mujj nekk. Euh, euh, euh, symbole destruction symbole corruption kooku dafay mujj nekk danger moo tax yowmal xiyaam safara xet bi nga xam ne moom moo leen di gën a lor mooy xetu boroom xam-xam bu dul woon jëfe xam-xamam waaw donc yal nañ yàlla musal ci ci loolu mu ne ko moom yonent yàlla Shuayb mu ne ko yaa rab yow sama boroom haulaay al ashrar fama baalul axyaar d'accord ñuy def lu bon mun nga leen lakk waaye ñi nga xam ne defuñu lu bon ñu ne woon ñooy suñuy sëriñ ak yooyu lu tax nga bàyyi leen lu tax nga bëgg leen lakk yàlla yebal euh, euh, euh, waxi ko ne ko ndaxte daahinu ahlal maasi fa lam yaxdu li li xadabi la fa lam yaxdibu li xadabi mu ne parce dañ doon jay di di flatter eh, ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy eh, eh, ñi doon nekk ci fen jet-setteurs yeeg borom alal yeeg ñi ne nga xam ne dañu nekkoon ci fen ak ak yooyu yëpp ci ci loolu ci di leen cajoler di def ay louange ci ñoom di leen def ay courbette ci ñoom duñ leen wax dëgg loolu moom moo indi ñu leen di dugal fi ñu leen di dugal muy ci safara ñu ëpp fa ñi nga xamante ne ñooy def lu bon parce que ñu def lu bon am na ci ñoo xam ne bu ñu jëloon micro tey wax ak ñoom danañu dellu mais du n'importe qui mooy jël micro nag nit ñu déglu la mais fii ci Sénégal am na ñoo xam ne bu ñu jëlee micro dañ leen di déglu ndax poids bi ñuy poser sur le plan spirituel ak yu demee noonu ñaareel bi ñaareel bi mooy istimraarul euh, musi fil maasi maanaam ki nga xamante ne ni day flatter nekk naa feq bëgg jël loxo ci loxo nit ki kooku toujours dafay bëgg euh, euh, euh, ki bon ki muy continuer ci li muy def parce que moom it ci lay tedd pour am li muy sutéere ci moom pour yóbbu ko ci ci këram donc loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu lu kéemaane moo tax traité naa fiq nag traitement bi lii la maanaam ci ñetti point yii la maanaam traité naa ci ñetti point yii la taallumu l insaan umuura diinihi wa minha iqaabu almunaafiqina yowma alqiyaama mooy bi ci jiitu pour faj ko mooy nit ki dafa war a xam diineem liy digle ak luy tere ci diineem maanaam diine bi yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi indi parce que diine bi dafa bari ay group groupe bu nekk ak noo déggee mais képp dafa war a am une lecture directe et personnelle des textes ce qui dire que dañu war a xeex yépp luy ignorance diine jullit bi dafa war a xam soit arabe bu ko xamul les livres son traduits il euh, y a des pamphlets en pamphlet en kii yeneen yu demee noonu yépp wax nañ ko ci sa diine nit ki warul toog te mënul lire mënul bind parce que alquran islam dafay woo nit ñi ci xam-xam te ci bind gis nga alxuraan dañ ko bind donc war dañ ko war a imiter waaye doo ñëw rek ne na xamuma damay dégg parce que dégg bi beneen compréhension des masses la lay jox alors que un quelqu'un un responsable dafa war a xam da war a dem à la moo tax danga war a jàng sa mbiru diine lan mooy digle lan mooy tere gis nga laxdar yi daf koy jàngale yeneen téere yi dañ koy jàngale moo tax ci axdar yi mooy li diine euh, jullit bi lu mu lu mu gën a tuuti comme xam-xam naa sunu nijaay Saliou Sarr mi ci ñëw mooy mu xam diineem lan mooy digle ak lan mooy tere mais xamoo ko nga jékku ci nit yaa ngi dégg nit kooku du la ko jàngal wala yow jàngoo lu nit kooku bind pour ci sa diine nga xam ko mais boo perte yaa pertel sa bopp beneen bi mooy ñu jàngal naafiq yomal xiyaam yan yan lan moo ko ci mën a fekk comme peine ak ay amende waaw comme pen sax laay wax dinañ ko duma dinañ ko dinañ ko fudd day nekk ci suufu safara donc mu moytu li nga xamante ne ni mooy mooy naafeq ak flatterie ak cajolerie tu vois ak encensement boo xamante ak flagornerie dégg ñaareel bi bu xamee diineem ba xam li ko ci fekk en tant que walla wala walla wala wala euh, moom moom moom naa fekk bi ak yow mooy xiyaam li ko ci mën a fekk ñaareel bi mooy mu mu transformer boppam réformer boppam fexe jikkoom mu setal ko rafetal ko xeex ak boppam waaye bi nga xam ne mooy ñetteel bi te foofu laaj terminé mooy bi gën a am solo nag nga xam ne détergent la mooy bi gën a am solo pour dindi ko ci naafeq mooy muy julli ci yonent bi ak ci waa kër yonent bi parce que loolu dafay dindi naa feq moo ko wax ci xadis alsalaatu ala muhammadin wa ali muhammadin fa innaha tuzhibu maanaam prier sur Muhammad et famille fait disparaître l'hypocrisie de l'individu donc mooy ñu wirde salaatu ala nabi allahuma salli ala muhammadin muhammad moo gën a gàtt loolu day dindi naa ci nit ki ci xolu nit ki ñu ngi leen di ziyaare bu baax ñu leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di jégaluwaat bu baax ci yéen di xaar contribution yi pour gën a enrichir débat bi fii ba vingt et une heures wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, asalaamaaleykum mon très cher grand frère le très pertinent euh, Cheikh Fall de Praia ñu ngi lay ziyaare di la ñaanal di sàkku ci yow ñaan di am lool tey ñaan yu wees yi ay naqar ay tiis yal na ko yàlla far ñi dem yàlla yokk leen leer fi ñu nekk dëkkale nag sayyiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di lool di la dégg euh, c'est vrai gën lañ déggante li nga wax ni c'est important xam naa ne am na solo trop parce que wax nañ ko ci sunuy thème ci biir thème bi mooy euh, généralement liy indi euh, euh, hypocrisie ñu bari dañuy yaakaar ni hypocrisie wala liñ tuddee morale wala éthique religion moom dafay ci wàllu diine rek lay wax julli woor ak defaru sa diggante ak sa borom alors que nit ki d'abord c'est la morale morale moral boobu mooy waral mooy mooy jikko waaw éthique mooy teggin kooku da nga koy gis ci culture yëpp gis ko ci civilisation gis ko ci religion waaw ci philosophie aussi mooy seen base soit la philosophie idéaliste ou réaliste ou pragmatique tu matérialiste yëpp c'est la morale donc loolu dafa am solo moo tax yonent bi wax na ko ci ay xadis ne li koy indi mooy aljubn mooy la lâcheté mooy ragal manque de courage d'énergie morale de fermeté se taire par lâcheté devant une injustice xam nga yooyu yëpp manque de courage devant le danger fuir par par par par lâcheté devant l'ennemi loolu yëpp manque de courage la boo ko bëggee jël nag ci lâcheté boobu nga ne mooy suree ko religion déedéet loolu dafa bokk ci nit nit moom la yàlla njëkk a sàkk d'abord mu indi religion loo xam ne day adapté ak nature am primordialam waaw donc lâcheté boobu nag nekkul rek ci ci ci comme ni niñ ko waxee alal wala walla ci ci ci diine ragal wala déet mais de son caractère de manière générale moom la waaw ci am nga ci wàllu ngëm bu dee ci diine wala ngay topp benn mbir bëgg ko ci nit ñi fekk yaa ngi ci jublu am soit ay privilège ay avantage mu jaral la sa honneur sa dignité loolu mooy li nga xamante ne ni moom mooy lâcheté loolu nag day yóbbu nit ki ci hypocrisie ci naafiq euh, euh, comme niñ ko abordé effectivement aussi boo xoolee liñ tuddee faible maanaam euh, faible de caractère muy koo xamante ne nii dafa ñàkk solo parce que gis na devant une situation mu ñàkk ci volonté mu ñàkk ci fermeté waaw wala parce que ñàkk na pexe pour mën ko dindi kooku faiblesse de caractère loolu da nga koy gis ko ànd ak soxnaam ñu ne wëpp mu daw bàyyi fa soxnaam tu sàcc bi ñëw faagaagal famille mu daw bàyyi leen fa gaynde bi ñëw mu bàyyi fa famille tu vois yooyu yëpp Euh, yu demee noonu ñu ñëw saaga la ci sa kanamu papa sa yaay munoo réagir maanaam qui manque de volonté ou de fermeté euh, ne n'est pas en mesure qui n'est pas capable de soutenir l'adversité voilà de résister aux passions même loolu sax faible de maanaam euh, caractère la ñu teg fii yu neex yi mu wóor la ne lu xaraam la euh, munoo ko résister loolu faible de caractère la donc gis nga yooyu yëpp daf ci am du ci rek ci religion mais c'est quelque chose de caractérière d'éthologie ngeen baal ma nag ci baatu tubaab yi parce que dama bëgg rek ñu gën a comprendre ñi nga xam dañu jàng tubaab ñu xam ni ñuy ni ñuy parce que léeg-léeg dafa am ay baat yoo xam ne ci tubaab euh, ci wolof dafay xaw a daf ñuy xaw a échappé tuuti donc loolu moo tax euh, boo demee ci éthique ci yooyu yëpp da koy da nga koy gis léegi mu li nga xamante ne mooy le conformisme conformisme aussi dafa wute ci biir loolu maanaam am na ñoo xam ne parce que conformisme mooy tendance boo xam ne da ngay conformer wu aux usages ñu ngi ñu ngi julli ñu ngi woor waxtu koor jot na nga koor nga woor nga accepter manière de penser yi wala d'agir waaw ci ci soit muy sa communauté wala sa sa sa famille wala sa sa société muy norme sociale yi nga xam ne moom moo nekk ci sa environnement loolooy conformisme donc ci biir loolu am na ci yoo xam ne muy man ak yow dañ koy d'accord am na yoo xam ne duñ ci d'accord am na yoo xamante dañ ciy conformer wu parce que y a les yeux là y a les oreilles qui nous entendent y a les yeux qui léegi pour am kerse boobu nga nga conformiser wu te comme am andi ci nga conformiser wu ci loolu parce que loolu moom moo tax yooyu aussi c'est des degrés de faible caractère tu donc loolu mooy li nga xamante ne ni moom mooy li ci am ci côté boobu nga xamante ni tout ce qu'on dit là c'est quelque chose qui relève de la morale sans même que religion ñoo intervenir ci yooyu dafa am on parle là de lâcheté euh, faible caractère de flatterie d'hypocrisie en matière de religion ou bien en matière de comme ça dans la vie entre hommes sur le plan vertical ou original euh, Lakhdari nag c'est un pamphlet pamphlet mooy livre boo xam ne du dépasser cinquante pages ay trente deux pages wala yooyu livre bu ndaw lay doon livre bi lu ko tax a jóg c'est pour jàngal nit ñi l'aspect cultuel de la religion maanaam ni ñuy jaamoo yàlla ci wàllu culte maanaam julli woor jàpp nangu mudum koor ak yeneen yooyu la Laxdari moo ko tax a jóg pour jullit bi mu mën a xam ce qu'on appelle en français la jurisprudence mooy jurisprudence la chariatique nga xam ne moom dafay wax ci côté maanaam naka la ñuy jaamoo loolu nag fiq boo ko déggee c'est l'interprétation du droit waaw maanaam la corpus le corpus est là léegi ci la génne maanaam def ci ay li ñu tuddee jurisprudence pour génne ay texte ni lii lii la yàlla wax par exemple julli ci biir alquran nga xam ne mooy c'est le corpus fondamental la Vulgate mooy le texte fondamental waxul nañu julli ñaata rakk waxul ñetti julli ñaar xam nga alxuraan indiwul lool léegi nag les def al al Akhtari ñoom ñoo ñëw ak ñeneen ku mel lii la ñuy def waaw julli nii la loolu moo tax a jóg wal fajri euh, Euh, al axtari mu nekk un pamphlet boo xam ne introductif ci li nga xam ne mooy la jurisprudence euh, islamique parce que xam nga l'islam y a trois euh, kii dañ ko mooy la le fiqh la chariatique tout ce qui relève du droit des lois ak li ñu tuddee la morale mooy al ahkamul tout ce qui relève de la morale ak li nga xam ne ça relève de la aqida de la doctrine maanaam ngëm gi naka la ñuy ngëmee ak yooyu kan mooy yàlla ci connaissance am omniprésence am omniscience am ak yeneen yu demee noonu donc noonu la demee maa ngi jégalu bu baax